mbokk internet yi maa ngi leen nuyu di leen naan dal leen ak jàmm nguur gi a ngi commencé teg loxo jege ña la koy farandoo ci Bassirou Diomaye Faye ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne ñoom la ñu jot ñu ngi ñuy xamal ne rek am na ñetti responsable yi nga xamante ne ak ay jege ña la koy nga xamante ne police daal leen daal di eh, teg loxo nee na ñoom nag nee nañ bi leen teg loxo xamalu ñu leen lan moo taxaw ñu daal di leen teg loxo bi ñu eggee ci commissariat bi nga xamante ne foofu lañ leen yóbbu ci lañ door a xamal ne li nga xamante ne moo taxoon ñu teg leen loxo mooy amuñoon droit ngir taxawal fi nga xamante ne moom moo di Pikine ab quartier général amuñ ñoon droit daal di uti benn bërëb bi nga xamante ne foofu la ñuy mën a ñoom responsable yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di seen militant mbokk yi lii moo tax li nga xamante ne moom moo di responsable yu euh, Bassirou Diomaye Faye ñu nga xamante ne euh, leen loxo fële ci Pikine daal di leen yóbbu euh, ci kanam fi nga xamante ne moom moo di commissariat bi jamono bi ma xam ne yéen ñoom nag ñu ngi pour le moment ci commissariat ba laata ñuy xam ana lan la yoon fas yéene dogal jëmale ko si ñoom waaye jàpp leen nag ñoom dara taxul ñu teg leen loxo lu dul dañu daal di taxawal fi nga xamante ne moom moo di Pikine Pikine ab quartier général bi nga xamante ne ci turu ki nga xamante ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye maanaam candidat bi nga xamante ne moom la Ousmane Sonko daal ne ñoom euh, bi nga xamante moom moo di Pikine ñoom nag responsable yi nga xamante ne teg loxo am na kenn ku nga xamante mu ngi wuyoo ci turu Lamine Lamine Loum keneen ki nag euh, ba léegi xamaguñu turam waaye euh, lu euh, nga xamante ne ay la kay farandoo ci Bassirou Diomaye Faye ñoom nañ daal di teg loxo fi nga xamante ne moom moo di fële ci Pikine ñoom nag li tax ñu nag dañu leen di teg loxo nee na ñu am dañoo benn bi nga xamante ne foofu la daal di mën a dajee ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di seen i militants yi ngir waxtaanee li nga xamante ne moom la ñu bëgg wala loolu la ñu namm ci seen candidat ki nga xamante moom moo di Bassirou Diomaye Faye mbir mi nañ ko toppal lépp li nga xamante nag ah, jëlee nañ ko ci ah, mu doon xibaar bu bees nañ delluwaat fii ni yëkkee leen ko mu mel ni nag léegi nag ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko moom ah, toppeetuñu ko dara ki nga xamante ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye moom lañ tegagum léegi bët ndaxte moom la Ousmane Sonko daal di tànn ngir mu jiite ñi nga xamante ne ñoom ñoo di patriotes yi si jongante élection présidentielle bu février 2024 mu mel ni nag mbir mi narul yomb benn yoon ci ki nga xamante ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye ndaxte bu ñu fàttalikoo ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko bu mu amoon mbébét daal di doon candidat ci élection présidentielle yi am na li nga xamante ne moom jotoon na ko dund fii ci réew mi mu mel nag lu ñu mel tamit ki nga xamante ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye ak ay jegeñaaleem commencé dund jamono ju ñu toll ni comme ñi nga xamante ne daal nañ daal di euh, euh, euh, benn quartier général bi nga xamante ne foofu la ñu daal di daje wala waxtaane ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di seen militants yi jamono ji ñuy wax ni ak yéen nag ñoom ñu ngi loxo li nga xamante ne moom moo di police ba léegi nag ñuy xaarandi lan la yoon nar a fas yéene dogal jëmale ko si ñoom waaye pour le moment nag jàppale ne ñoom li taxoon ñu daal di leen jàpp mooy am na benn quartier général bi nga xamante ne ne euh, moom lañ taxal fee ca Pikine police daal di ñëw di leen di teg loxo yóbbu leen bu ñuy eggee nag fi nga xamante ne moom moo di commissariat ci lañ leen door a xamal rek lii taxoon ñu teg leen di loxo moom moo di euh, am ñoon droit ngir daal taxawal li nga xamante ne moom moo di quartier général foofee ca Pikine et comme ni ma ko waxoon sànq léegi ne leen toppal mbir mi lépp lu nga xamante ne rek euh, jëlee nañ ko ci xibaar bu bees nañ delluwaat fii nii yëkkee leen ko incha allah ma leen di jox dig daje si yeneen jot a xibaar ci Laye Roby l'international